Modou Lo ñëw na dem ma gis ko mm. mu dem dugg ci stade bi mm. dem maanaam gën a yokk sa waay doole mm. si ta loolu noo ko gisee waaw mais noonu lu ko war li Modou def lu ko war la waaw lu ko war loolu dara nekku si voilà loolu man man expliqué waaw non xaar ñu ñëw ci kii mu ne mu ne Modou Lo xom mais mais loolu lu ko war la mm-hmm. c'est normal mm-hmm. wallahi c'est normal mu def ko Ah, man tam moom bu doon bëree keneen ci waa Guédiawaye noonu lay def rek ah moom lu tax mu def loolu moom moom la concerne ñoom ñaar la am na lu ñu séq am na lu ñu séq waaw ah, mais maa ngi rafetlu daal loolu moom ñaawlu ma ko moom sincèrement par ñaawlu ma waaw <laughs> ah. euh, gis nañ démb fi tamit man démb fi laa nekkoon gis naa fi Sa Thiès mu ànd ak euh, Pape Mama Fall Mbës ak Père Mbow ñëw Sa Thiès démb nu mu def ci yow mbégte rek ndax démb wax naa ko ah mbégte sama sama rakk la sama rakk la sama waay la yaa ngi dégg ba mu ñëwee fii démb dama ci am mbégte ba dafa fekk may takk ngemb mu ñëw taxaw ba ma takk pare mu taxaw wax ak man ñaanal ma yàlla kon donc jëmm jooju képp koo xam ne yaa ngi géej waay euh, di ma ñaanal yàlla na ko ñaanal saake kees ci lépp lu mu mënti dugg yàlla oyofal ko may ko ci ndam yaa mu nekk rakk ju baax rakk ma jox cër. saa wallaahi rakk ma jox cër dama koy wax waxaat ko. heure bu amee lu ko métti bu yëkkatul portable am woo ma wax gi dina fu mu jaar ba mu yegg si man yaa mu nekk nit ku dëggu nag mais yàlla na ko yàlla bàyyeeg soxnaam bàyyi ko ak yaayam ci barke Seydina Mohamed Euh, xale géejawaay yi tamit boo xoolee du ma sax ay xale ndax kooku ma ne xale moo xam naa di ma mbéj Alioune Seye 2 la jëm te nee nga moo la jàngal bëri samedi euh, samedi loolu wala dimanche samedi lay bëree mm-hmm. voilà moom ak ki nga xam ne moom mooy Modou mu mel ni tamit foofa dina métti yomb yàlla bu mu ci Alioune Seye 2 yàlla bu mu métti ah, ak Modou maa ngi wax sama mbokk soose yëpp ak séeréer yëpp nañ ñaanal Alioune Seye 2 yàlla may ko ndam Hmm? ci barki Serigne Babacar si ci barki kilifa diine yëpp. loolu nga koy ñaanal. loolu laa koy ñaanal yàlla. Hmm. waaw ndax sama maître la sama lépp la. sa maître la sa lépp la. sa poulain yi ci géej way ñoom ndaw ñoom ñaabu ndaw ay bugaan. waa ñooñu ci sa poulain yi la bokk. nekk tax. waaw ñoo ñooñu ñëpp samay rakk la ñu ah. lu ko mel ni andaw combat bi da somm andaw moom aw fayam. duñ fi nekk di wax fi ay waxam moom fi la ñuy fanaan ndax moom sama àndaawu bopp la daf ma bëggal boppam yal na ko yàlla defal jàmm booy géejawaay yëpp ñoom ñëpp ma taxaw muy Jackson ñëw na géej contact nañ fa benn yoon du ñaari yaa ngi dégg ak yeneen yëpp ñoom Macha Perera ñoom ñëpp yaa ngi dégg ñoom ñëpp ñëw nañ jàpp ci affaire bi mhm. donc ñooñu noonu amuñu seen fay mhm. waaw booy géejawaay ñoom ñëpp jàpp nañ ci même ku ñëwul sax maanaam di nga dégg yéeneem ñaan yaa maa ngi sant géejooy ñëpp bàyyiwuma kenn mm-hmm. waaw. le promoteur Mansour Ba moom mi tëggoon seen affiche tëgg démb seen combat moom tamit loo koy dolli ak waa jàmbaar production parce que jeune la. Mm-hmm. te bi mu duggee si làmb yàggul. Mm-hmm. mais boo xoolee ay affiche am yëpp. qualité lay doon quoi. waaw Mansour moom euh, xam nga mën naa taxaw gërëm ko ci benn côté bi mais damay santaale sama papa Ba ba pare. maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam ndax euh, père ba moom tey bu du woon moom du ñu am Mansour kon donc ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax di ñaanal suñ papa père ba yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla yokk la ci barke Seydina Mouhamed suñu yaay ji baax ji nekk ci kër gi tamit yàlla na yàlla guddal fanam gis nga Mansour euh, tey jeune la bi nga xamante ne ñun mbëri ñi ñëpp ko war a jàppale ko mu nekk koo xamante ne jeune boo xamante ne dafa bëgg li muy def bëgg sportu làmb kon donc ci bés bi mu jógee nii nañ ko ciy ñaanal yàlla daal yàlla nekk loo xamante ne réussite totale la ci am yaa ngi ak yeneen combat yi nekkaat ci kanam maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax. mais loolu daa mel ni waaw maa ngi sant ñëpp ah. Euh, di nuyuwaale sama frère Rambo. Rambo waaw Rambo. maa ngi koy ñaanal yàlla gis naa taxawaay bu baax a baax. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay. ci barke Seydina Mohamed. waaw di baax a baax gis naa taxawaay bi ah. lépp rafet na. kenn deful kenn dara mais lépp rafet na. yàlla na fi yàlla def jàmm. xam nga di wax ne am naa mbégte bu baax a baax. mais dama bëgg boo leen toogee rek da ngeen xam ne man drapeau drapeau Géejawaay laay mës a yor. ci barke Seydina Mohamed maa ngi sant waa Gambie. fans club bi nekk bi xam la lat famille bu fa nekk sama frère yi nekk foofu noonu ak sama jigéen yi maa ngi leen sant di leen gërëm di nuyu tamit waa kafe ga Daaru Salaam xam la ak ASC Géejawaay yëpp ASC yëpp waa Guy ga waa Bagdad waa Géejawaay xam la waa Déggoo waa Daaru yaa ngi dégg waa Fijmit ah cité bi ma dëkk maa ngi sant ñëpp daal bàyyiwuma kenn ah di nuyu ki nga xamante ne euh, sama rakk la Kalanda xam naa ne moment bi dafa ànd ak àll mu ngi nii toog Kalanda mu nekk rakk joo xamante ne chaque jour ki jëfee xam la day jàpp ci bés bi di ci wax yal na ko yàlla defal jàmm ci barke Seydina Muhammad du nuyu ñëpp du nuyu waa Canaba ñëpp bàyyiwuma kenn waa Tiwaawoon waa Touba soxna May sama yaay ju baax ji maa ngi koy nuyu baax a baax soxna may ah maa ngi sant ñëpp di leen gërëm waa waa Kaolack ah, maa ngi sant ñépp waa sama maam yi baax nekk fii caajaay euh, xamala waa caajaay ñëpp waa Mbuur tante Fëta tonton Jibi ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm xamala waa waalo nag maa ngi leen di sant di leen gërëm mbaa di mbandinko la anaa kam mooy laal mbal tentulo mbal jeyla ala dimmaye victoire o soto mbal tentulo fonfon ah, a ntetal jonuɗo ala ɗam manna bal jonuɗo alma ala ya jo mbal tentulo mbal jeyla ɗum fama moustapha silla ñene duwaji la fotatanam alhamdoulillah fo ala tento wa taybankol ɓe ɓe tentulo mbaye jeyla seedio ha ɗum fama de ndiwum kontan la ah, mum kete vie sisé ñe kontan fonfon marsa sum ha ah. Casamance Ziguinchor sirifo mo dawoɗa duniyankono mbal tentulo mbal jeyla ha ah, malien ol fana malien ol mais kontonno mbel jeyla joolal bambaraw fulol ha ah, waw waalo pëliyeeg ñëpp gis naa seen taxawaay rafet na lépp rafet na ah maa ngi koy sant da baax automobile ah maa ngi koy sant di ko gërëm baax a baax ah waa Guinée Bissau gis naa taxawaay bi lépp rafet na kontaan naa ci ñëpp ku lim juuma ah, waa cité bi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 sur wwwsénégal Sénégal 7, le roi de l'information en temps